donc euh, li ñu tax a mooy euh, comme ni ma ko waxee léegi ay ndaw lañ yoo xam ne dañu boole seen doole di jël ay euh, ndogu yi nga xam ne moom la ñuy organiser ci koor gi donc je pense que tey moom mooy seen quatrième semaine ah, booy xool donc waaw waaw waaw waaw waaw man vraiment dama ci am sentiment de satisfaction parce que lii amul woon bu njëkk nga gis ay ndaw ñoo xam ne vraiment ay góor ak ay jigéen engagé wu am benn am benn volonté ngir teg ay actions yoo xam ne c'est des actions seen gox kanam donc vraiment ñu seetlu ne loolu amul woon donc boo amee rek dafay wane aussi conscience bi nga xam ne actuellement ak conscientisation bi nga xam ne tey jii jeunesse jeunesse jeunesse bi am nañ ko parce que xam nañ ne léegi seen gox kenn leen ko defaral xam nañ ne aussi ne état ñoom dañu bokk ci état état du président bi nekk ci kaw ak ay ministre am ñoom aussi ils font partie de ou bien elles font partie de donc euh, donc euh, euh, responsabilité sociétale boobu jeunesse bi war a am ci gox ñoom aussi ñu ngi koy doxee teg ay action di def ay pizza ci koñ yi depuis bi koor gi commencé ba léegi ñuy jël seen dërëm seen alal aussi di togg ay ndogu di ko jox waa gox bi di jël ay lampe aussi di xool koñ yi nga xam ne c'est des koñ c'est des c'est des quartiers ñu fa def ay lampe di def aussi vraiment ay set euh, setal général tey jii xale yi ngeen gis ñoo dugg ci koñ yi dugg ci quartier yi dem gis mbootaay yi dem gis chef de quartier yi yóbbu leen aussi ay ay euh, ay suukaru koor ci seen alal dem ci imaam yi jox leen diwlin saaku ceeb suukar tàndarma te lépp seen alal la dem aussi xooli mbootaay yi dem aussi ci quartier yi laaj leen lan mooy seen problème nemmeeku leen xam seen jafe-jafe fas yéene koo saafara ci loolu aussi jeunesse bi à travers la le mouvement yëmbal ci kanam jël ay moyens seen moyen bopp fas yéene tabaxal ay pizza mbootaay yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci quartier yi pour mën leen permettre aussi ñu man di évacuer seeni i eaux usées leen aussi ñuy gas ay ndox di gas ay ay autant pour ay euh, ay kan ci biir koñ yi di ko fàttee suul guddi gi aussi nit ñi di dox di ci di ci di ci tàbbi donc euh, pour parer à tout cela ñoom jël seen moyen seen doole seen alal vraiment ngir jëmale seen gox kanam moo tax ma ne parent boo gis fii ci yëmbal wala muy banlieue bi war nga mën a taxaw xale yi tey parce que je pense que nga am doom mu euh, investir ci développement quartier ba ba nga dëkk je pense que loolu lu lu ñu war a mën a tey jii saluer la. waaw président de la république du Sénégal ñun dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy woo ñu ngi koy woo ñu ngi koy woo vraiment di ko lancer un appel mu gestu la jeunesse de Yeumbeul à travers effectivement le mouvement Yeumbeul ca kanam mu fex xam ne. xale yi amuñu amuñu emploi mais ñu ngi jël ci seen li ñu li leen yàlla wërsëgale as tuut di def ci gox bañ dëkk donc par rapport ak euh, euh, mesures yi ñu jël ci création d'emploi euh, jeunesse su Sénégal ñu ngi woo président Macky Sall pour mu gestu la jeunesse de Yeumbeul à travers aussi le mouvement Yeumbeul ca kanam donc xam ne tey jii gis nga ñii ngeen gis sama ginnaaw ñii c'est des jeunes yu ñu war a jàppale ay jeunes yoo xam ne ils sont prêts bu ñu leen wanee yoon bi. ñu relever le défi donc Balla ku ko xamul dégg nga ko mu ànd ak aussi mbootaay bi ñoom ñëpp di ay jeunes yoo xam ne quartier bañ dëkk ñu ngi fay liggéey ngir seen quartier changé donc président de la république maa ngi lay ñaan nga gestu la jeunesse là cette jeunesse là vraiment je pense que euh, c'est la tienne donc euh, monsieur le président de la république ñu ngi lay un appel pour nga jàppale la jeunesse de Yeumbeul waaw waaw waaw parce que lii ñoom ñu ngi ci voie bu baax bi xanaa dañ leen di pousser rek ñu gën a ñu gën a jëm ca kanam te je pense que ay xale yoo xam ne bu ñu leen jàppalee ñu dem man li ma leen di gën a ñaax mooy ñu gën a nekk benn fi ñu teg seen tànk ñu bañ ko teggi xam ne aussi gox ndaw ñi ñoo koy defar gox waa dëkk ba ñoo koy defar. te tànk yi ñu taxaw ànd ci ak seen yaay yi vraiment nekk na lu baax nekk na loo xam ne euh, incha allahu rabbi buñ ci continuer li ñu bëgg seen gox avancé incha allahu rabbi dinañ dina dina dina dina am incha allahu rabbi donc daal maa ngi leen di gërëm di leen sant depuis bi koor gi commencé ba léegi taxawuñu nelawuñu ñu ngi jël seen alal di ci def te yemuñu foofu bu koor gi jeexee aussi am na yeneen action yu ñu mënee te incha allahu rabbi ñun li ñu mën mooy ànd si ak ñoom pousser leen pour vraiment euh, ñu objectif yi ñu fixé wu ñu mën ko atteindre